Rafael bu baax seen ànd ak seen kóolute ak it bi ngeen ñuy euh, topp ci euh, Diaspora News TV xibaar yi ci ak tënk dañu koy euh, door ak njiitu réew mi moom conseil des ministres bi mu war a amal palais de la République dina fi bàyyeekoo ci réew mi Congo Brazzaville lu mooy loolu président de la République dina jàll fule ci euh, Qatar ngir euh, teewe euh, journée du Sénégal de l'expo bay am ci Doha ber bi ñu dëgmal yamo ak fukki fan ci weeru décembre mom la cérémonie nak agence sénégalaise de promotion des exportations ñu gën ko xam ci ASEPEX moo koy coordonné ci njiital ki ñuy woowee Zahra Yann Thiam ñu àddu ci leneen mu kàddu euh, kàdduy euh, tuuma yi nga xamante ne ni euh, député bi di mataaxa Diop dal dina koy teg ci ndondu Ousmane Sonko di wax ni leader bu ex Pastef dafa jot koppar yu bari loolu yu bàyyeeko ci ay lobby pétrole ngir rek financé campagne moom député bi nag ne loolu mu wax delluwu ca benn yoon ginnaaw te it delluwu ca benn yoon ginnaaw euh, du ca teggi lu toll ni euh, tarfatal ayni ndax la mu wax fu leer la ko teg euh, te it am na ci ay firnde ba tey ci lu soxal xibaar euh, tënkum xibaar yi ñu euh, daal day àddu ci inauguration euh, phase 2 bu plateforme industrielle internationale ba nekk ca Diamniadio loolee nag mi ngi loolee nag mi ngi am démb ci mbir moo xamante ni nekk nekk itam mbir moo xamante ne ni dafay tax Sénégal bokk ci li ñuy woowee les nations industrialisées ngir dooleel étape projet projet bi nak la Bank China dal a débloqué lu tolok 60 milliards ci suñuy copar dal di ñu addu ci xibaaru euh, bitim réew euh, dal di koy doré ak ancien premier ministre britannique bi euh, di Boris Johnson mi nga xamantene ni nak commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie mi ngi koy auditionné jamono ji ñu fàttali ni Royaume-Uni mbass mi sonalon nako ko lool ba ñu bëri ci askan wa dal di ci ñak sen bakan lolé sax mo tax. rekk ñu woo ko ngir laaj ko naka la yore woon la ñu ko dénk loole nag tey ji ci yàllarba ji lay doon jàpp ëllëg ci alxames ji Mauritanie ak Tchad bok ci euh, bok ci euh, kuréel gi euh, ñuy wowe G5 Sahel bi ñu sos ci atum 2014 ngir xex li nga xamantene ni modi jihadisme ak yu mel jël na dogal jël nañu dogalu seeyal wala bok tas kuréel goge nga xamantene ni modi G5 Sahel lolé nak mi ngi am ginaaw bi nga xamantene ni nii jël nañu décision. dàq réewum Niger ak Burkina Faso ci euh, googule euh, kuréel mbokk yi lii moo fi xuusandi euh, woon ci ay xibaar ñu doon leen ko dégtal di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ci sunu yeneen jataayu xibaar.